dalal la chambre de commerce ak avec le ministère du commerce ci marché international. national marché bi ak gare bi ñu ànd infrastructures. infrastructure bi la l'idée générale c'est que gare bi moy compléter marché bi pour que camions yi pas engorger marché bi ni Dakar aussi suñu diké chargé fi mëna a fofu marché bi amna 137 magasins 65 yi ñoo am ay chambre froide yu momal seen bop ci biir magasin bi 750 mètres carrés chambre froide yeneen magasin ñokoy ñoo parce que am na magasin xam obligatoirement produit yi y a faaw ñu am chambre forte ci biir y a ñoo produits ne si produit yi exigé wul chambre forte, mais de temps en temps mën nañ ko soxla dans ce cas mën nañ grouper wu ci chambre forte. Il y a un bâtiment administratif un laboratoire phytosanitaire pour tester aliments qui fi génn ak yi parce que c'est destiné à la consommation donc ça doit répondre aux exigences biologiques amna aussi un parking le parking sera payant amna ben pont bascule pour camions yi génn ak yi dugg pour maîtriser la charge par rapport à l'infrastructure qui est mise sur place. chef de l' état duñu mën lu may gërëm ko ndax euh li buñ ko ñëwé tay ba diko inaugurer ba mom mu joxe ndigal né nañ ñu wax ñun wa chambre de commerce ñu ñëw xol ko ndax xalaat bi ci ñun la joggé euh, defe naa ne du ñu mën lu may sant ko gërëm ko ndax lepp ci mom la déparé ci mom la déparé ndax mo réaliser projet bi ñun xalaat bi rek lañu ñu amoon moo ñu gëm kon bu ñu defee ba nga xamante ne egsi nañu fi mais dañu ñëw and ak ñi ñu wara andal pour ñu xol ci marché bi. du ñu sori ci wax fi té ñaan luñu yalla suñu xarit Maodo Lamine Niang mi ñu tuddé marché bi tax loolu le président de la république def ak Mansour Kama ndax ñoom ñaar ñoo àndoon ak monsieur le président de la république dal di dem Turquie ba financement bi mëna taxaw ba ñu réaliser lu mel nii yàlla def na ñoom ñaar ñëpp jiitu nañu. kon lu ñu mën rek lu may ñaan ñaanal leen yàlla fex aussi ba yeggale liggéey bi en tout cas mébét bi leer na ndax ku ne xam na ne sunu produit locaux yii gis nañu ne mu ngi yàqu te ñun loolu moo ñu metti woon ba ñu ne nañu créer situation yoo xamante ne dina mun a permettre ñu mun a am fu ñu def produit yi ba boobu ñu waree jaay jaay te jaay bi duñu perte am na ci ñu bari ñoo xamante ne am nañ ay verger liggéey nañu baax ci liggéey nañu bu baax ci fruits yi ak légumes yi outil bu mel nii daf leen jafe te loolu moo leen mën a permettre nu teg ko fi ñu ko war a teg ba commercialiser jot ñu commercialiser ko ñun tamit li ci jublu rek mooy waruñu def dara te ñu ko aussi ak grossistes yi commerçants yi surtout les grossis am nañ ci rôle ndax ñoom ñoo am capacité financière bu leen mën a permettre ñu ñëw jëndi produit indi ko teg ñi nga xamante ne nag ñoo ci tegu mooy ñi nga xamante ne ñoo nekk ci zone yi nga xamante fa la ñu defee produit bi loolu defe naa suñu rôle yegg na ci waxtaan ak ñom ndax bo demee Lompul wala nga dem ci euh, boori geej gi fo ci mën a dem rek di nga gis produit yi nga xamante c'est des produits frais nek à l'air libre loolu nak dañu bëgg mu jeex loolu motax ñu créer marché bi ba nga xamantene lepp lo xamantene produit frais la mën nañ ko fi def les produits du cru mën nañ ko fi def même les des produits transformés sax mën nañ ko fi def l'essentiel na dugg ci cadre objet li nga xamantene mo objet marché bi